asalaamaaleykum maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xam ne am nañ ko tey ci mas mi ñuy wax Covid 19 ci àllarba tey bii di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer avril 2020 jot nañ résultat examen birologique yi ci juróom-ñetti téeméer test yu réalisé juróom fukk ak. juróom-ñeent dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak benn moom la wax contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu di leen di topp si suñu bërëbu liggéeykaay yi juróom-ñett yi ñoom moom la wax cas yi ñu jëlee ci transmission communataire mooy yi nga xamante ne kenn xamul ki leen ko wàll te moom mooy yokk mbas mi ci dëkk bi yooyu nag ñu ngi leen gis si diggante Padois am nañ fa benn am nañu benn Touba am nañu juróom benn ca Thiès ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent bi ñu leen saytoo gisatuñu doomu jàngat bi ci ñoom wër nañu ñooñu nag ñu leen di gis ci l'hôpital yi dalal jàmm am na fukk ak ñaar yoo xam ne wër nañu jam ñaajoo am na ñeent faan am na benn Kolda am na benn Saint-Louis am na benn ñi nga xam ne ñoo tëdd tey hôpital seen wér gu yaram mu ngi am tan ba dalee ba mbas mi Covid 19 duggee Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci juróom téeméer ak juróom ak ñaar ci ñi nga xamante ne ñu ngi yore doomu jàngoro ji ci ñooñu ñetti téeméer ak fukk ak juróom wër nañu juróom-ñeent. génn nañ ci àdduna benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese fii ci ñi ñuy faj ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé action sociale mu ngi dooleeti di ñaan askan wi ñu topp digle yi nga xamante ne mooy tax du ñu am feebar bii ñuy wax Covid te tamit du wasaare woo ci biir Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.